salaamaaleykum mbokku déglukat yi yéen a ngi seen émission meilleure santé sur la 93.0 Afia FM tey jii nag ñuy dalal gan bu am solo ci biile émission di meilleure santé ñu fas yéene waxtaanee rek euh, jàngoro bi nga xam ne ay jàngoro bokk yi nga xam ne rek tey jii ñu bëri ñu ngi koy jànkonteel ani fan la ñu war a mën a dem ngir saafara li ni mel tey jii nag dañuy dalal docteur Guèye mu wax ñu moom ñooy kan docteur ñu lay nuyu. dalal fii ci nga xamante ni mooy suma cabinet di Allo Ortho nekk fii ci HLM Grand Yoff man maa ngi tudd Pape Mamadou Gueye di orthophoniste de formation maanaam baat la boo xamante ni lépp lu wàllum jëm ci wàllum communication ak wax ci xale ba ci mag ak rééducation boobu ci loolu la ñuy liggéey maa ngi aussi hôpital d'enfant bu ñu naan Albert Royer ci service neuropsychologie foofu laa nekk depuis deux ans di ca fa liggéey voilà. ñu ngi lay ne dalal jàmm ci émission meilleure santé yaa ngi koy wax yaay orthophoniste nga docteur tey jii baatu orthophoniste du ma ne xaw naa bees ci ñu bëri ci askan bi waaye ñu bëri naandoo ñu ni li mel alors ci lan nga yëngu docteur. orthophoniste nag baat bu yaatu la métier la boo xamante ni ne yàgg na ci àdduna peut-être que ni ne ci contexte bu ñu nekk Afrique. am na ndëkk yu bari yoo xamante ni mi ngi fay law rawatina Sénégal fii depuis lu ëpp 30 ans mi ngi fiy dox orthophoniste nag maanaam métier la boo xamante ne lépp lu jëm ci wàllum wax communication moo xam oral la wala bind lépp loo xamante ne day laal ay trouble ci développement wu xale ba ci mag moom lay saytu topp ko pour mën koo daal leeral ba mu leer maanaam ci loolu lay liggéey lépp lu jëm ci communication xale ba ci mag mm-hmm. ci loolu lay liggéey. léegi nag liggéey bi day day bari façon parce que trouble yi day bari mën nañu nekk problème communication yoo xamante ni ne tey dafay simple maanaam ay retard simple retard de parole wala nekk retard de langage wala ay nekk ci des contexte trouble développement am na ci yoo xamante ne ne aussi day laal pathologie maanaam day am feebar bu lalu ci suuf léegi nag bu xale bi développement bi dafa xaw a wu ba magam ba ni mu nekkee mag day laaj des pour jubbanti ko pour traité trouble yi ñu envoyé ko ci orthophoniste bi mën a saytu ba pare jubbanti wax ji jubbanti communication ba mën a leer ci développement am pathologie aussi bari na bari na forme ci ni muy ni muy dikkee buñ ko jëlee tey jii mooy xale boo xamante ni retard simple yi xale bu yéex a wax wala xale ba am ay problème articulation parce que communication dafa bari pàcc langage ak euh, parole bokkul. tey xale boo xamante ne dafa am ay retard problème d'articulation maanaam wax ji day xaw a tag ci ay mots yoo xamante ne du leer bu tolloo ci yenn âge yi parent bi war na mën a njort ne sama doom kat am na retard par rapport ak boo ko saytoo ci yeneen moromam yi kooku da koy envoyé ci orthophoniste bi tey jii nii mu saytu ko xool ko defal ko proposer ko rééducation pour mën a teete wax ji bu dee xale boo xamante ne tey problème mu langage la am maanaam construction phrase yi syntaxe bi mën a wax par exemple loo xamante ne ne phrase bu complet la bu kooku xale bi mën na ci am problème mën na am jafe-jafe yi dajale moo yi ba mën koo saytu ba mën a leer naa ñi mu wax ko kooku mooy trouble yi simple yi si loo xamante ni orthophoniste bi da koy traité hmm. léegi nag am na trouble yoo xamante ni simple maanaam day laal feebar tey jii nii mën naa jël trouble envahissant yi développement loo xamante ni ci développement xel la nekk bi ci gën a bari ci jamono jii moom lañuy wax autisme ci trouble yoo xamante ni ne tey jii nii social bi day perturbé wu tey xale bi day am ay problème mu comportement ba wax ji da ciy am déficit bu weesoo loolu aussi mën nañu am loo xamante ni ne trisomie 21 la ñu ko gën xam ci entre guillemets benn terme mongolisme bu njëkk. Mm-hmm. foofu tamit xale bi day am déficience mooy njëkk nekk nekk facteur ba pare am ay problème articulation problème communication bi day taxaw. Mm-hmm. xale yi nga xamante ni tamit seen dégg-dégg dafa xaw a suufee maanaam nopp dafa am trois parties oreille bi noonu la bindoo xale boobu tamit orthophonisme da koy rééduquer ndax tey jii boo déggul doo wax. Mm-hmm. dégg-dégg bi mën naa bari façon dafa am ñuy dégg tuuti am ñuy dégg-dégg bu yem am na ñoo xamante ni dara. léegi bu ñu la appareil pare tey nag pour mën a tàggal wax ji orthophoniste bi tamit day intervenir pour mën a teete wax ji mag ñi nga xam ne aussi tamit dañu am ay problème mu voix maanaam opération goitre nga am problème mu voix sa baat jógatul ni mu war a jógee ci paramètres yi mu moo xam beneen feebar bu ko lal boo xamante ne laal na baat bi orthophoniste bi day intervenir orthophoniste bi tamit day intervenir ci lépp li nga xamante ni maladie neurodégénérative la maanaam lu mel ni ci ay Alzheimer ay Parkinson léegi bu demee ba bopp bi xaw a jaxasoo tey jii nii procédure ralentissement bi di dem orthophoniste moo war a intervenir tey jéem a téye yàqu-yàqu yooyu jéem koo defaraat au niveau communication ak des travers des exercices defal ko bilan ba mën koo saytu ba mën koo téye gën a am solo aussi bi leneen ni mooy ABC yi nga xamante ne ne barina jamono ji ci ci ci dëkk bi bu defee ABC dem ci neurologue bi tey jii nii ba mu xool bopp bi saytu ko ne par exemple yàqu-yàqu bi fii la nekk ci côté bopp bi après liggéey bi foofu la yam léegi nag tey bu ñu waree tàggataat wax ji. tàggataat bopp bi di ko ba mu ñëwaat ba wax ñu mën a normal autophonisme mooy liggéey loolu moom lañu wax trouble aphasiologie par exemple après ABC rek day am trouble yooyu waaye tamit nit mën naa def ABC ba pare aussi am problème wul lekk moom la ñuy wax alimentation ñu koy wax ci suñu contexte ñu déglutition maanaam lekk bi su mu war a jaar parce que lekk ay étape la mm-hmm. étape yooyu mu war a jaar nag mooy perturbé wu léegi bu perturbé woon nag léegi nag ci orthophoniste bi léegi mooy intervenir jéem a régler lekk boobu ba pare balaa moo ñëw ci wàllum wax ci ci tënk ci domaine yooyu noonu la orthophoniste di intervenir. docteur mu doon euh, domaine yu yaatuma leen di fàttali rek yéen a ngi seen émission meilleure santé ak docteur Guèye di orthophoniste euh, orthophoniste sànq yaa ngi wax euh, lu am solo ci wàllum communication ngir di intervenir li ci gën a bari mais dafa am yenn pathologie yi nga xam ne yaa ngi koy souligner ci mel ni trisomie 21 yu ci mel ni autisme yenn saa tamit xale bi dafay am problème mobilité ay loxo ak yi ni mel est-ce que di ngeen intervenir ci mbir yooyu comme ça xale bi mën a bind xale bi mën a tenir correctement. waa parce que loolu moom la wax par exemple ay préhension parce que ci développement xale ba ci yéeg dangay gis ni perturbation yi day bari day am ay problème mm-hmm. ko defal xale bi par exemple xale bu mënul tenir bu mënul bind yooyu yëpp moom la ñuy wax par exemple boo ko ne day laal bi laal préhension bi yooyu yëpp orthophoniste na koo tàggat saytu ko parce que première des choses boo xool mooy li ñu naan latéralité loxo lay téewee bi ba pare am na ñoo xamante ni gauche la am na ñoo xamante ne droite am ñoo xamante ne ay ambidextre lañ maanaam ñaar yëpp la ñuy léegi pour nga mën a bind il faut que d' nga mën a téye am préhension bu baax léegi nag bu dee par exemple contexte euh, trisomie 21. Mm-hmm. xale bi day judduwaale mu ñu ce qu'on appelle ci symptôme yi maanaam day am hypotonie maanaam yaram bu xaw a bàyyeeku léegi nag yaram bu xaw a bàyyeeku boobu noonu nag ci li muy njëkk a indi màggaayam mooy problème articulation bi. bu weesoo déficience bi nga xamante ne ni symptôme bu wóor la ci trisomie 21 léegi yaram bu bàyyeeku boobu noonu nag léegi day indi seconde hypotonie léegi bu indee hypotonie li nga xamante ne mooy muscle yi nekk ci kanamu face bi war a mën wax ji leer mu yooyu day bàyyeeku léegi mooy waral des fois muy mu mel ni am bavage maanaam xale buy yut xamante ne léegi nag alors que praxe yi nekk fii sa gémmiñ sa face bu amul doole wax ji du mën a leer parce que articulation dafa am fu muy tegoo dafa am fu ñuy ñëw xamante ne ay résonateur la yu nekk ci nit moo xam làmmiñ la moo xam bëñ la moo xam côté faringal bi lépp ci ci juddukaay ci physiologie bi ko suñu borom tënkee araf bu nekk dafa am fu muy tegu léegi nag bàyyeeku boobu mu bàyyeeku day tax wax ji day desee leer am problème bu parole léegi yooyu nag dañ koy tàggat à travers des massages yooyu def ci kan maanaam muscle face yi muscle kanam gi bëgg mën gën koo mayaat doole pour que mën mu mayaat pour nga xamante ne ne buy articuler son bi day tegu fi mu war mm-hmm. am loo xam aussi tamit mën naa am aussi jafe-jafe yi wax parce que nit ngelaw lay waxee moom lañ moom lañ wax gestion pneumophonique maanaam ngelaw mi mooy remonter ba ci cordes vocales fii mën koo yëngal pour ko wax ji mën a génn tey booy dugg par exemple bu buñ ne ma ci dër mhm. mu bari ci ci ci ci Sénégal dafa ce qu'on appelle gestion pneumophonique maanaam mën a saytu ngelaw mi ak kàddu bi ngay génnee mën koo accordé ba mu mën a tolloo ba yëpp mën a kàddu bi ngay génne leer boo seetloo ñii dër dañ seen respiration dafa kawe léegi nag tant respiration boobu mën na indi ay kàddu yoo xamante ne wax ji day tag mu indi yeneen problème yoo xamante ni mën naa ñëw mooy insinué maanaam sa yaram di participer ci wax ji alors que wax dafa war a yomb dafa war a clair ba nga xamante ni ne bu amee leneen lu ci laxasu ci ay jafe-jafe rek ça veut dire que problème am na tey boo jëlee sa qu'on appelle euh, euh, autisme muy wax tey ñu ngi koy wax ci faram TSA mooy trouble de spectre autisme bari na façon bari na forme bari na ay degré ñëpp aussi te du benn mu doon pathologie boo xamante ni aussi ne léegi law na lu bari ci Sénégal moo xam xale yi nga xamante ni dañuy am ay tere ay jikko autisme wala xale yoo xamante ne dañuy am autisme pur et dur am yoo xamante ni wàllum autisme moom laa la doon rappelé sànq di la wax ni day am déficit social. Mm-hmm. ay xale yoo xamante ne tey contact bi ngay am ak nit ñi mën a xam seen bànneex mun a xam seen naqar mën a jokkalante nit ñi ba ci xale day perturbé wu communication wàllum wax ji tamit day perturbé wu. maanaam day am déficit mën na am aussi yeneen trouble accompagné ko moom la ñuy wax trouble du comportement maanaam xale bu dul toog xale boo xamante ni tey jii nii te boo ko defee examen yi xool ko moom la ñuy wax autisme maanaam déficit yooyu noonu ci ñetti parties yooyu mooy première phase wu def léegi xale boobu tey jii nii balaa ngaa liggéey moom il faut nga canaliser ko mm-hmm. foofu da ngay dugal prérequis de base yi maanaam loo xamante ni xool reetaan imitation coaction ci xale noonu lay développé loolu mooy première phase développement balaa xale di mën a wax. léegi nag ci pathologie yooyu noonu la communication bi day perturbé wu léegi nag bu communication orale bi perturbé wu mën nañ jotti ne après ci kanam communication écrit bi maanaam wàllum mbind wàllum jàng mën na perturbé wu pathologie noonu lay noonu lay dikkee ci ci ci gàttal ci gàttal ci gàttal voilà leneen itam docteur yaa ngi koy wax pathologie noonu lay dikkee mais dafa am lenn li nga xam ne par exemple euh, yaa ngi koy wax ci wàllum communication ngeen di intervenir Euh, xale bi bu demee ba am par exemple trois ans mu am problème mu wax hormis autisme bi est-ce que entourage bi la parce que gis nañ léegi dëkkuwaay de telle sorte que xale yi dañuy dëkk soit ak seeni parents kese les deux parents bu ñu xëyee liggéey est-ce que manque de communication boobu manque de cadre bi nga xam ne dina tax xale bi mën a éveiller wu xale bi mën a construire bokkul tam ci facteurs yi nga xam ne mooy tax tey xale yi développer yenn ci ay pathologies. Mm-hmm. waaw question bu am sol la parce que tey ci xale yi développé yëpp yi ñuy gis dama koy faral di wax entre gémme ma koy tooñee ñi ñëw ma leen di wax xale appartement mm. maanaam kër goo xamante ni papa yaay doom ñoo ci nekk et sociabilité dafa baax ci xale xale dafa nekk ci moom moment yoo xamante ni dafa war a découvrir dafa war a nekk ak ay moromam nekk ak ay peeram pour que langage bi mën a développé wu communication bi mën a gaaw muy fort di wax mm. bu dee nag milieu bi mu nekk dafa dafa tënku problème day am parce que bu dee par exemple xale bi du wax lu bari wala ñetti personne la bu papa yaay demee liggéeyi environnement bi bu génnee mu dem école ñëwaat environnement bi dafa restreindre ba nga xamante ni ne du ko may mu développé wu du ko may par exemple xale bi génnee potentialité ak mën-mën yu bari ci moom léegi loolu mën na freiner euh, communication bi. ba tey du bokk ak pathologie mën na nekk maanaam tey jii nii nii xale bu judd ci milieu familial bu mag a mag a mag a mag wala ci benn banlieue bokkut ak xale boo xamante ne ci milieu bu restreint bu tëju la bokk boo koy seetlu ci en terme de wax du ñu beneen facteur boo xamante ne tey mën na indi problème aussi mooy écran yi mm-hmm. tey da ngay gis expo yu xale yoo xamante ni dañu leen teel a exposé ci écran moo xam tablette la moo xam portable la moo xam beneen jumtukaay léegi xale bi nag bu dee da ko teel a exposé mooy waral faral di wax tey xale ba ba muy am 5 ans jëm kaw tant que wax ji ak xalaat bi dëgërul ba mu mën a comprendre ba prérequis yi tegu xale bi li gën mooy mu a yor mm-hmm. parce que day perturber développement am tey da ngay gis ne xale yoo xamante ne tey yii nii dañuy am problème mu maanaam ci wàllum wax ci wàllum parce que dañ leen teel a exposé ci ay écran écran boobu nag xale bi mënul mënul def différence mënul saytu lu ci baax lu ci baaxul ba pare dimbaliwu ko. parce que bu dee xale bi tey day day nekk ci ay heure présenté wu nekk ci téléphone portable kan lay communiquer amul communication day toog moom dong lu mu gis ci mike bi en terme de comportement wala lu muy seetaan pour moom loolu moo valable da koy essayer reproduire moo xam wax la moo tax des fois ngay gis xale yoo xamante ne day am genre logo rek maanaam dañuy wax wax wax wax te duñ noppi mu mel ni ay ay picc wala yiy sax que communication bi dafa déréglé ci ay des fois boo ko teelee repéré il suffit que nga ñu dindi écran bi def bi tey jii nii nii. defaat guidance parentale maanaam xale bi fi mu dëkk mbedd bi conseiller parents yi jéem koo teppi tuuti mu déclenché wu waaye des fois day toll foo xamante ne ne nag day accompagné ci yeneen symptômes yu grave yoo xamante ne xale bi fa lay jaaree am retard boo xamante ne da koy mujjee dikkal trouble parce que retard ak trouble bokkul mhm. tey jii nii koy nattu ci âge ci âge ku ci nekk ak xale bu nekk ni ngay développé ba pare ay xale kenn du leen comparé kenn du leen que ni ñuy développé bokkul ci biir ñeenti bant yooyu du am même mën-mën yi du am même capacité yi du ñu am même développement yi waaye dafa am loo xamante ne tey jii bu xale bu tolloo ci yenn âge yi gisoo ko mu épargne gisoo ko mu am yenn problème problème yenn communication yi taxaw loolu war naa laa alerter ne kat sama doom kat mi ngi jël âge te prise bi li mu gën a teel gën a baax des fois da ngay gis pour ñoo xamante ne bii ñëw après boo ko seetloo dañuy am pathologie nekk moom. wala mu jàppale retard la parce que boo déggee dina wax dina wax dina wax li tax ñëpp yàlla rek moo xam procédure développement normal ñu nit di waxee mais est-ce que xale bi dina wax tey jii nii bu xale bi amee ay problème deux ans trois ans ñu ne ah dina wax développement bee yéex nga toog ba quatre ans cinq ans gisoo dara est-ce que gënul woon ñu teel a def prise en charge bi saytu xool moo tax toujours des fois nga gis xale boo xamante ne day am retard mu après retard mooy loo xamante ne ci kanam diñ ko mën a diñ ko mën a dabe mais des fois du nekk ci compte à retard des fois day nekk loo xamante ne laal na pathologie bi su boobaa li ngay gën a toog di toog di xaar muy gën a muy muy gën a yàgg. Mm-hmm. moo tax des fois environnement bi dafa baax ci xale. Mm-hmm. xale dafa am âge bu mu nekk ak ci développement am heure bu mu toll ci lan la war a découvrir lan la war a am ci nombre de vocabulaire. Mm-hmm. boo xamante ne tey moo ko mën a permettre mu mën a def construction mu mën a wax wax du leer. mais njott nañu li ci bari léegi écran yi. am na lu muy yàq ci lu bari ci développement wu ci développement ñu leen di fàttali mbokk auditeurs yi yéen a ngi seen émission meilleure santé sur la 93 point 0 ak docteur Guèye di orthophonix docteur Guèye sànq yaa ngi wax lu am solo li nga xam ne mooy wàllum écran yi ak cadre bi nga xam ne xale bi dina ci évoluer mais tey ji dafa am benn acquis bi nga xam ne euh, parent yu bëri dañ jàpp ni c'est la meilleure des solutions euh, soo nekkee ci sa occupation. pour xale bi may la jàmm souvent da nga koy jox écran te écran yi souvent ay dessins animés ñoo siy nekk mimique yooyu xale yi di développé yu ci bëri dañ naan ni day tax xale bi éveillé day tax xale bi bàyyi xel euh, bàyyi la nga liggéey sa liggéey day tax xale bi li muy seetaani ci mi day tax mu teel a muus est-ce que euh, tey jii euh, point de vue boobu mi ngi valable ba tey parce que dañu gis ni tey jii dañ naan xale yi tey ñoo gën a yeewu xale yi démb ndax dañuy seetaan télé dañuy seetaan dessin animé alors que yaa ngi wax li ni mel mën na créer benn trouble wala benn retard ci ñoom xam nga sax écran tey am na nañu ci yenn yenn bërëb yi am na ñu koy utiliser tey pour def genre rééducation ci yenn pathologie ci yenn xale yi newu ne dafa bon mm-hmm. waaye ci xale mm-hmm. dafa ci benn période âge bi dafa gënul xale bi di teel ay exposé maanaam tey papa yi bari ak yaay yu bari booy ñëw maanaam genre feete lay nekk ci ñoom ñu ne la sama doom bi dafa yeewu boo ko joxee téléphone bi de fu ne lay dugg mm-hmm. ngay dajeg ci rééducation yi parents bi ñëw wax la loolu pour moom fierté la mm-hmm. mais boo ko toppee ba ca biir gënul parce que il fii que yow nga évaluer xale bi xool xale bi tey jii nii nii communiquer égal deux maanaam nga wax xale bi tontu mm-hmm. wala mu laajte mu tontu parce que ñaar mooy communiquer dafa am émetteur ak récepteur ci communication base bi noonu la tegoo mm-hmm. mais tey xale bi bu yoree écran kan lay communiquer mais mi bi lay communiquer lan lay gis miki bi lii du comportement boobu lay gis da ngay gis ne xale yoo xamante ni dañuy développé par exemple maanaam dañuy waxtu duñ noppi mm-hmm. dañuy wax amul temps de pause ba pare di waxtu doo comprendre li ngay wax wala xale bi développé lu ñu naan écolalie benn terme la boo xamante ne ne xale bi boo ko ne allo mun la allo nga ne ko momar mun la momar nga ne ko samba mun la samba du la parce que comprendre noonu lay waxee tey boo ko ne ok mun la ok mm-hmm. nga ne ko sàmm irabet soxna mhm. par exemple bu tuddoon béti danaan def na lii béti wax na lii béti alors que moom la ci boppam mhm. alors yooyu tamit yan genre trouble parce que boobu mën naa ne par exemple ce qu'on appelle reconnaissance de soi mhm. parce que dafa dafa am ci loo xamante ni moom lañ naan tey euh, chemin corporel xale balaa xam keneen normalement dafa war a xam keneen ci olof dañ la ko daan tekki mag ñi dañuy wax waaw tànk loxo tànk loxo nopp bakkan baat batu gémmiñ dañ ko daan wax maanaam il faut yow nga reconnaître soi loolu aussi dafa bokk ci procédure de développement xale mhm. il faut nga reconnaître si ba a reconnaître tuy keneen ak keneen ak keneen mhm. léegi bu dee dafa perturbé wu xale bi tey jii nii nii nii ni gën a yombalee expression bi rek noonu la koy mhm. moo tax des fois mën na am jafe-jafe ràññee jafe-jafe xam boo ci buñ génnee ci chemin corps la ñuy dugg sa ko on appelle espace temps espace temps maanaam man nga mën a saytu man man maay doomu diw nii laa tudd fii laa dëkk ñaata at laa am fee te loolu mooy espèce temps nga mën a situé ba pare mm-hmm. mais bu dee pour yooyu dañ ci am trouble day jafe nga mën a ràññee keneen mm-hmm. ci développe ci développement xale mm-hmm. parce que tey communication ci ni muy dikkee bu dee xale bébé la boo ko bu la reetaanee nga reetaan mu topp sa remote tey jii ni mu topp sa loxo wala mu reetaan mu ngi communication non verbale la ça va boobu mi ngi jël réceptionné na li nga bëgg wax même bu dee en terme de communication non verbale la ay reetaan la mooy moom moom laa doon fàttali sànq naan la prérequis yi. Mm-hmm. prérequis nga xool nit ci bët communication la mu imiter communication la tey xale bi soxla dara jàpp solo ko yóbbu la mu def instrumentalisation communication la mais communication non verbale la. bokkut ak communication boo xamante ne tey xale bi mën nga koo laaj dara mu comprendre dara dem jël ko ñëw indil la ko jox la ko. Mm-hmm. comprendre na ko laaj. Mhm. boobu day am benn vocabulaire bu ñu naan passif xale bi nga ko laaj téléphone wala pomme wala dara wala saak mu dem indi ko ñëw jox la ko waaye bu dee en terme d' activité maanaam lo vocabulaire a répété mu jël ko indil la ko. Mhm. parce am na vocabulaire passif ci bopp bi mais amul vocabulaire actif pour mën na koo répété verbaliser ko. parce dafay dafay bari forme. Mhm. des fois ngay dégg baatu nit dañuy jot ne xale buy dégg baatam. mën naa wax yi. dégg paatam mooy mu yuuxu moom la ñuy wax vocaliser bokkut ak verbaliser verbaliser mooy nga teg lu am sens doté mën na wax papa mën nañ ko tekki papa mooy lan nga ne yaay mën nañ ko tekki mooy lan wala nga ne sama sœur nañ ko tekki mooy lan ci noonu la demee léegi fierté boobu noonu man ñu dellusiwaat tuuti ci fierté mooy parents yi mm-hmm. gis-gis boobu ñuy am xale bi âge bu mu ne ak li mu soxla mm-hmm. mais tey écran favorise na tey loo xamante ni ne même bu dee am na côté bu positif ci wàllu rééducation ñu koy utiliser mais li muy yàq moo ëpp tey jii nii nii li yomb ci yaw mooy bu xale bi di déggoon da ngay am xale yoo xamante ne dañuy accro maanaam 24 sur 24 xale bi yor mm-hmm. toog ci boo ko dindee def crise def jooy mm-hmm. léegi bu dee xale bi dafa accro loolu di développer écolalie di développer ay trouble comportement wala mu développer agressivité dafa mën a nekk yu simple mais trouble yooyu tal yi mën na dugal xale bi ci ay jafe-jafe yoo xamante ne tey ëllëg pour mu génn ci day day doon problème parce que tey bu dee dafa restreindre papa day liggéey yaay day liggéey ñu bàyyi ko kër ga nekk ak mu ko fa nekk rek ci kër ga léegi bu dee xale bi léegi par exemple buy jooy wala pour mu may leen jàmm mhm. écran ngeen koy jox bu mhm. ngeen ko joxee écran mais dimbalu leen xale bi yéen ko indil ay problème mhm. parce que xale boo xamante ne ràññeewul xamul mënul def différence lu baax ak lu bon en terme de communication en terme de xalaat ba pare tey jii nii nga exposé ko ci jox ko loolu danga koy gën a yokk trouble bi da koy gën a indil ay jafe-jafe mais dimbali ko parce que communication ñaar la hmm. alors que ak écran l'enfant ne communique pas hmm. donc ci ci ci tënk noonu noonu noonu la taxawee hmm. voilà moo tax di ci bàyyi xel di ci bàyyi xel xale dafa am un moment yoo xamante ne tey jii nii sa normal nag xale dafa war a épanouir maanaam nekk ci lu bari découvrir surtout stade boobu noonu stade découvrir xam mais dafa war a restreindre aussi ba nga xamante ne xale bi dara du ëpp ci moom parce que lu ëpp day tuuru donc même xale dina développé wu ci lu bari am na tey jii nii des jeux ay puzzle yi ñuy jaay yoo xamante ne ay c'est société des jeux de développement yoo xamante ne xale bi mën na koo am di ci foo yoo xamante ne c'est des moments de partage ba nga xamante ne tey jii nii nii du bénéficier wu ci écran te boo seetloo tey li muy yàq ci développement mooy ëpp li mu mën a defar dafa am xale yoo xamante ne tey jii nii dafa am problème yu bari ci li mooy exposition bi bi ñu teel a am. da ngay gis xale moom day judd am 4 am tablette après boo ñëwee léegi nag moom la day am problème comportement yu njëkk yi mooy xale boo xamante ne du la xool ci bët boo koy woo du la wuyu mm. te pourtant mën nay am potentiel maanaam am mën-mënu dégg ñu lay dégg mais juste que ñu ne rek dafa am prérequis bu perturbé woon mën nga woo xale bi mu toog fii du la wuyu mm-hmm. da ngay jàpp ni déggul mm. parent bi day ñëw ne la suma doom déggul nga njott nga testé xam ne doomam mi ngi dégg. pour ñu ci demee ba mu gën a tëdd dañuy def ce qu'on appelle benn PEA mooy potentiel évoqué auditif la ñuy dugal noppi ba xam mais li ci ëpp xale bi day dégg. li si que ni rek prérequis dafa perturbé wu maanaam prérequis maanaam mooy loo xamante ne mooy tegu balaa wax di tàmbali. ci xale ci développement xale tey bi xale boo xamante ne tey jii nii xoolam day jafe du la xool ci bët. Mm-hmm. attentif dafa am ay trouble attention. Mm-hmm. tey jii bu nit ñi wala xale boo xamante ne day tàmm wéet du nekk mukk ci am sociabilité ci groupe bi wala. day am ay ay symptômes yoo xamante ne day ñëw ne attention attention wala nga gis xale boo xamante ne dafa am développement bu normal maanaam dafa jékki-jékki wax normal ba ay 3 ans rek mu mel ni lu mel ni coupé def taxawal notion de régression yooyu yëpp ay symptomatologie yoo xamante ne ne booy saytu sa doom di ko xool ndànk-ndànk war nga cee mën a bàyyi xel. ci bàyyi xel parce que bu ci ëpp damal toog dañ lay wax dina wax mais dem toog boobu wóorul parce ci ban contexte nga toogee. am na pathologie yoo xamante ne bu xasee ba dal xale c'est toute la vie du deñ mm-hmm. buñ ko defee diagnostic ba xool ko mais comme je dis toujours rek bari na façon xale yi bokkuñu développement yi bokkuñu. Mm-hmm. dafa am ñoo xamante ne mun nañu am retard bu simple. Mm-hmm. retard boobu nag il suffit fi de temps rek mu déclenché wu après mu dem ci gàttal noonu noonu noonu la ñu koy jaajëfal moom ba tey rekk di docteur Guèye di orthophoniste ñuy waxtaanee itam rek tey jii beneen trouble bi nga xam ne dañ koy faral di nemmeeku mooy nit ñi nga xam ne dañoo dër wala boog seen wax dafa bar euh, souvent nit ñi dañ koy judduwaale wala boog dafa di li nga xam ne rek dafay am tamit ci seen développement benn mbir mi nga xam ne dafa bi moo tax tey jii ñu mel noonu ak nan la ñuy daboo li ni mel. Hmm. xam nga tey bégement ñu koy wax dafa bari ni muy ni muy dikkee mën naa am ay contexte yu lay permettre nit jékki-jékki rek dër xam nga des fois nga tiit commencé dër mm-hmm. nga dund benn situation boo xamante ne dafa complexe commencé dër waaye li ci ëpp tey jii nii nii recherche yi fi muy mënti dem maanaam am na ay jeunes yoo xamante ni ci nit la ci génétique maanaam mën ko dugg ci famille boo xamante ni mën nga fekk 3 ba 4 personnes yoo xamante am na ay jeunes yu dëj wala boo ko toppaatee ci ay maamam wala ci ay papam am na am na ci trace maanaam tey jii nii gëstu yi ci foofu la gën a mën a dem ci ci wàllum wàllum wàllum dër léegi nag bu ñu nee dër mooy moo xam ne foofu la ñuy ñëw ci wàllum wàllum parole maanaam wax ci mën naa yéex mën naa gaaw wala nga gis koo xamante ne day day taxawal science ne si maanaam buy wax de yaram bi day am hypertonie parce que dër noonu la dafa bari façon dafa am ñoo xamante ne moom la ñuy wax chronicité maanaam loo xamante ne ay répétition la ci dër bi comme maanaam pop pop pop nekk ci pat am ci keneen koo xamante ne day am tonicité maanaam tension yaram bi diis na diis boo xamante ne tey jii nii yaram bi yëpp ay participer pour mu mën a génne kàddu wax alors que tey corde vocale yi nekk ci ñun fii nii nii dafa soxla élasticité maanaam dafa war a oyof toll toll toll pour que mu mën di ubbeeku di tëju di yéeg di wàcc procédure wax léegi aussi bu dee respiration bi dafa perturbé wu respiration bi anormal maanaam gestion pneumophonique lañ koy wax nga mën a gérer noyyi bi ndànk pour mën koo génne kàddu bi leer mais bu dee loolu dafa perturbé wu dañoo remarqué ne ci ñu beeg ñu bari ñu am dër respiration boobu normalu mooy waral des fois ngay dër ci ay situation parce que dër bari na façon mooy colonicité beeg yi mu la ko dikkee woon léegi mm-hmm. sévérité yi aussi bokkul ñii dañuy dër dër bu yam ñii dañuy dër dër bi nii mais ci ñu mu mënti dikkee rek léegi amoo pare nga dund situation mu dër nit ki dër ci waaye même bu ci dëree loo xamante ne la après dafa war a mais jamono jii fi gën a toll mooy maanaam am ay traces yoo xamante ne lii dañ koy wax ni ci ci dër la bokk maanaam benn côté boo xamante ni mooy côté génétique bi ci nit loo xamante ni ne tey jii ñu bari boo ko saytu puus ko nit mën na cee mën na cee am dër mu doon pathologie boo aussi xam nga xamante ni aussi xaw na doy waar parce que ni muy dikkee ci xale ba ci ba ci mag ak suñu société ni mu koy gisee tey da gis ne tey jii nii nii nii dër metti na. day eh, gis ay mag yoo xamante ne tey jii pour nga am emploi sax c'est tout un problème parce que tey buñ la woowee tey embauche nga war a dem war laa embauche wala liggéey quelque soit nga war def entretien dër mën naa permettre ba tey ci day dalal bu amul yenn tey jii nii yenn compréhension yi wala mu xam par exemple ce qui se passe mën naa bañ a am jot am sa temps déglu la mm-hmm. te yooyu de indi ay frustration te am ñu bari ñoo xamante ne dër bi handicap la ci ñoom ci lu bari mm-hmm. xamante ne tey jii ay mag lañ. ne ci société bi ba pare di ci dund yoo xamante ni quotidien la maanaam chaque jour nga dund ci lu ci métti loo xamante ni société bi moo la koy teg bu dee xale aussi ci la gën a biir ndax boo nekkee xale nekk ci say mbir morom wax bi xaw a dëgër xaw a tembete mu metti ci loolu foofu frustration la léegi après nag bégement bi day indi maanaam dër bi day indi beneen aspect psychologique boo xamante ne tey jii nii mën na freiner ci lu bari ci développement wu xale ba nga xamante ne après day indi yeneen trouble maanaam mën a wóolu sa bopp ci ci ko ñu koy yooyu yëpp bégement dër bi mën na ko perturber tey ji booy wax ci classe mën ngay wax compréhension maître na la noppil wala ngay wax balaa ngaa tàmbali wax wala balaa ngaa àggali mën la stop wala ngay am moom après ngay wax mu am ay rigolade ay mukkari ji ñi di ree ci suuf ñi loolu yëpp day déstabiliser la personne beeg bi nit ku dër ki moo tax trouble boo xamante ni aussi war nañ ci bàyyi xel loo xamante ni ci xale ba ci mag parce que bu la xale ba na léegi dañuy essayer rééduquer essayer wax ji ba nga xamante ne tey jii nii nit boo koy wax dina mën a yomb ci yow parce que wax bu amee dafa dafa simple ba nga xamante ne lépp bu amee leen lu ci dugg rek saa veut dire que am na problème am na mm. ci tënk noonu la mën a tënkee liñ naan mbége maa di ko wax dër docteur Guèye ñu fàttali rek nii ñu ngi lay dalal ci 93 point 0 Afia FM ci seen émission meilleure santé ngay intervenir ngay orthophoniste nag di intervenir ci li nga xam ne rek mooy suñu wàllum communication moo xam ndaw ak mag sànq yaa ngi wax pathologie yu bëri yi nga xam ne da ngeen koy corriger euh, moo xam ndaw la moo xam mag la ba ci ñi nga xam ne sax dañu jóge ci AVC ngeen di jubbanti yenn nii ci ñoom mu xam ñi nga xam ne itam dañu def ay opération goitre ngeen di jubbanti yenn nii ci ñoom tey jii mu doon euh, liggéey bi nga xam ne amaana ñu bëri xamuñu ko woon euh, ku ko soxla tey jii ku yor doom bu dër doom bu am yenn lacune yi fan la leen war a mën a fekk ak euh, accessibilité bi est-ce que yomb na pour nit ñi déjà ñu jël conscience que lii feebar la retard bii kat mën naa ko bañ a toogaale balaa muy jural sama doom jeneen jàngoro ma teel a dem ban bërëb laa war a mën a dem. xam nga tey jii nii moom li ñu doon métier bi dafa xaw a tëju restaurant tuuti parce que bariwuñu ñëpp Dakar lañ ne ci ñëpp Dakar lañ ne autophonistes yëpp te ñi ci bari ci privé yi lañ ne mais tey jàpp naa ne tey loolu boo ko njortee war nga mën a ñëw Albert Royer foofu hôpital Fann def consultation service neuropsychologie maanaam loo xamante ne ni pour public bi la parce que am na ñu bari tey jii nii ci privé yi la ñuy ñëw waaye tey boo ñëwee Albert Royer ñu defal la consultation am na sama yeneen naataangoo yi fa nekk. boo bu ñu defalee dossier tey jii saytu la di dañuy ma nga ci mën a jot gis orthophoniste bi tey jii nii nii mu tàggatal la defal la bilan tàggatal la jox la ay conseil wax la aussi lan moo ci mën a nekk ak ban démarche nga mën a suivre bu amee aussi beneen orientation dina la wax orientation bi fii nga ko soxla fii nga mën a dem tey ji nii pour mën cee jot waaye loo xamante ne tey jii par exemple mu métier bi aussi li tax mu xaw a mu xaw a jafe maanaam mooy demande yi dafa bari mm-hmm. te du Sénégal dong man tey jii ñi may tàggat di liggéey ñoom dañuy jóge ci sous région bi moo xam Mali la moo xam Gambie la moo xam Côte d'Ivoire la ba ci Cap Vert gis ni dañuy ñëw après AVC gis ni dañuy ñëw wala am problème mu voix moom foofu dañuy dugg ci dysphonie ay problème yooyu la dañuy gis ni ñëw ni pour ñu pour ñu tàggat leen parce que seen dëkk amu fa mais métier buy commencé dox ndànk-ndànk la mi ngi ñëw dox na parce que ñi ñaa ngi koy xam di ko miin léegi di ci def formation parce que am na benn école bu koy privé fii au Sénégal bu koy bu koy def depuis trois ans ñu ngi ci ñu ci liggéey boobu waaye ci yeneen dëkk yi ci la gën a développé bu gën a dox waaye njort naa ne ni ku ñëw Albert Royer wala nga contact ñu boo duggee aussi ci net bi di nga ko fekk autophoniste yi yu présent seen numéro ak ni ñuy defee consultation des fois li ci ëpp mën nga boo jaaree ci hôpital am médecin bi moo lay bindal not këyit dana kat demal seeti orthophoniste bi ci ëpp ci des fois ci noonu lay dikkee ñu def AVC wala am yenn problème bi médecin boo dem hôpital par exemple service neuropsychologie boo demee def ABC pare médecin boo toog boo ko boo ko suweetoo ñu saytu ko da lay bindal kayit dana demal numéro orthophoniste baa ngi nii demal nga seeti ko boo ñëwee moom it mu saytu la defal la bilan mën a tàggat liggéey bi mais il faut que nit ñi aussi tamit di gëstu di bàyyi xel yu bari. Mm-hmm. di bàyyi xel yu bari parce que ay métiers yoo xamante ne na tey jii nii nii bu dëkk bi doxoon normal fekk tey jii nii nii région bu nekk war na mën a am orthophoniste parce que loolu mooy mébét bi. Mm-hmm. parce que tey jii parce que tey service yi soxla orthophonie dafa pédiatrie daf ko soxla service ORL daf ko daf ko daf ko soxla service neurologie daf ko soxla ba ci mag ñi lu ñu naan gériatrie dañoo soxla orthophoniste maanaam tey ba ci hôpitaux yi tey domaine yu bari yu bari wala ñu mën a orthophoniste boo xamante ne maa nga fa di intervenir di nga xamante ne lépp lu jëm ci wàllu communication mu ko fay mu ko fay liggéey mm-hmm. loolu moo ci nekk ci ci ci ci ci gàttal ci gàttal waaw alors yaa ngi ma koy wax nee nga non seulement euh, bëriwu leen ba noppi mais itam euh, ci sa biir wax euh, benn structure privée mooy chargé wu formation li nga xam ne mooy orthophoniste yi est-ce que yombalal na liggéey bi ak tamit seen wàllum liggéey yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel parce que déjà nombre bi restreint na demande bi forte na. waaw demande yi forte na des li ci ëpp mooy par exemple tey bon. cher cher na parce que comme on dit spécialité la. cher na ci lu bari looloo waral tey jii nii offre publique bi tey ba mu favorable dem ci pour mën a pour mën a dimbali mais tey li gën comme ni ma la ko waxee woon mooy que mu tas ci Sénégal. ba ñëpp mën cee jot ba nga xamante ne tey jii ku ko soxla mais loolu yëpp aussi mais ci aussi buy dox buy dem ci kanam day laaj ñu structuré ko. ci ci ci lu bari wàllum statut social ci lu bari ñu structuré ko xëy na bu demee ba àgg foofu parce que mi ngi changé mi ngi dem ci kanam. bi ñu demee tey jii nii ba mu gën a bari dañ ko gën a légaliser gën ko structuré pour que ñëpp mën cee jot ba nga xamante ne tey jii nii day day day yomb jafe-jafe yi par exemple des demande bi des fois jël ba doo mën a di jël day am liste liste liste d'attente boo xamante ne tey jii nii nii nii doo am foo leen foo leen dugal loolu aussi des fois day day metti liggéey bi te aussi comme aussi tamit autorité publique aussi branche boo xamante ne tey boo demee ci yenn dëkk yi mais ay département la ci si moo xam yeneen branche yeeg yëpp tey jii nii war nañ mën a tey jii def ci ay jéego pour que tey jii formation bi mën a yomb parce que tey formation bi metti na man maa ngi jàngee Maroc ndax dem naa jàng ba ni may ñëwee Sénégal Sénégal tàmbaliwul ay parce que moo xamante te aussi boo génnee aussi il faut des moyens pour nga jàng c'est comme ça moo tax tey jii nii ñi nga xamante ni ñoo jiite war nañ ci mën a jàpp ba nga xamante ne ne branche bu am solo la. important la lu yaatu la ba pare campagne sang bi yooyu yëpp ba nga xamante ni nga xamante ni Albert waaye tàmmal nañ ko sensibilisation bu am solo boo xamante ne tey jii nii service looloo gën a yokk sax service bi gën a gaaw gën a dox muy service neuropsychologie mm. tey boo fa demee li nga am ci demande dafa bëri prise en charge yi bëri na mais nit ñaa ngi doxal di ci sant yàlla mm. tey jii nii moom war na mën am ci yeneen bërëb loo xamante ne tey jii day tax ba nga xamante ne lépp mooy bien-être mooy santé nit ki am problème mën cee jot mën cee faju ca na mu waree. Mm-hmm. Ah, ca na mu waree sax la ñuy dellu si waat parce que sa structure la ñu ne ñu gis lu mel ni salle de classe alors ban genre tàggat la gone yi fa nekk di jot. waaw xam nga fii tey jii nii boo seetloo santé spécialisée la. Mm-hmm. boo xamante ne tey jii nii day recevoir ay enfants différents parce que Sénégal boo seetloo tey am na ay centres spécialisés. yi yi jot am. Mm-hmm. mais tey yenn centre yi nga xamante ne mooy centre yi digne de son nom lu tax ñu naan centre parce que boo génnee gis centre yi ni ñu mel nga ñëw Sénégal gis yenn centre ça yi dire que le travail des na. Mm-hmm. tey c'est des enfants yoo xamante ne enfants différents lañ leen di wax lu laal handicap mais tey société bi da leen a rejeté c'est des enfants yoo xamante ne da ngaa liggéey ak dem école parce que école bi préparé wul pour jël xale yooyu. ba ci l'enseignant wala ki recevoir xale bi xamul pathologie xamul les troubles xale bi mënul continuer jàng foofu procédure normale mm. ba pare amul adaptation scolaire par rapport ba tey damay jël lu gën a simple balaa ñu ñëw ci xale mais tey jii nii amul adaptation bu wóor bu tax bi mën a permettre xale bi mu suivre école léegi loolu bu yàggee xale bi am ay problème jàng jàng-jàng moom la ñuy wax trouble d'apprentissage léegi lan lay indi échec scolaire lay indi parce que tey jii nii dañuy laaj xale bi ne mu adapté ci école mais normalement ci norme yi tey jii donc bu amul adaptation réew rek ça pose problème ñaata xale ñoo nekk en échec scolaire parce que ci jafe-jafe yooyu lañ nekk wala ñu nekk ci loo xamante ni ne amuñu kat moo mën a diagnostiquer trouble bi ne kii la amee à travers aussi ci yeneen yeneen professionnels yi mën a seet na kii problème bi la am loo xamante ni tey bu amul adaptation xale bi tey dana mën a dana mën a jàng tey gis un enfant sourd apparaît ci difficulté yi maanaam li ñuy wax problème d' intégration ci école yi gis ni dañuy bëgg di inclure mais inclusion aussi dafa am lu muy doxee ñëpp la ñu mën a inclure tey nit ki balaa nga koy inclure mais ki koy recevoir ki koy dalal war na xam xale bi war na xam ban pathologie la war na xam tey ban adaptation scolaire boo xamante ne tey jii mooy mën a dimbali xale bi léegi xale yi nga xamante ne li ci ëpp enfant différent yi tey école bu leen rejeté fan la ñuy dem raison pour laquelle récupérer ci benn nombre bu réduit projet bi nag yaatu na ci niñ ko bëgg taxawalee yaatu na ci yaatu na ci ci lu bari xale a jël jël nañ ni comme a autisme bi ak enfant sourd yoo xamante ni ne tey jii boo leen jëlee ci nombre bu réduit tàggat leen dafa leen apprentissage presque euh, bu spécialisé pour ay enseignants du ay éducateurs ñu gérer leen mooy def ko centre bu mag centre de référence au Sénégal parce que xam-xam mi ngi fi juste que ni des fois li ëpp li jafe bi mooy c'est moyen ngay demee pour pouvoir le faire mm-hmm. mais aussi ñu militer xam ne tey yàlla ji mooy bind mooy sopp ndogal day dal nit ku nekk fu ne xam nga tey nit ki xëy su ko def ABC kenn sóoru ko parce que li xew xamoo ko tey enfant différent yooyu ñuy wax ci pathologie bu di nekkee mais ci société bi lañ bokk donc ils ont le droit comme ñeneen ñi ni ñu amee droit te loolu Sénégal aussi même bu dee am nañ yaa des petites politiques yi ci nekk di ko ci def am na ñu ko ciy jéem mais des na il faut que ñu gën ñu gën leen a bàyyi xel ñu gën leen a bàyyi xel par rapport pour que aussi tamit li nga xamante ne enfant sans problème bi potentialité ak yi ñu ko yombal mu am ko mm. aussi xale bi nga xamante ne aussi tamit dafa am ay jafe mu mën a yomb ci moom ba mu mën a dem parce que il ñu bàyyi xel ni ci ci ñun lañ bokk. ñun ñëpp dañu am ay différence mais ci ñun noonu la demee. léegi ci leneen li ñuy wax euh, docteur Guèye bokk na rek ci li nga xam ne moom la ñuy ñaaxee askan bi parce que gis nañ ni pathologie yi bëri na te bëri na suñu biir kër yi tey par exemple am na xale yi nga xam ne dañu accro écran à la limite euh, euh, mën nañoo ne ni dem nañu ba développer ñenn ñi ay autisme virtuel yenn ci ay pathologie yi nga xam ne. war nañ koo mën a bàyyee xel te bañ a toog ñu naan bàyyil ba mu tanee dina màgg dina changer affaire yooyu nag donc lan ngay ñaax askan bi tey ji ñuy teel a bàyyi xel ci yenn ci ay retard ak ci ay pathologie ñuy nemmeeku ci biir njaboot gi. xam nga loolu laaj bu am solo la parce que tey bu ñuy dem prise en charge bi maanaam saytu bi lu mu gën a teel gën a baax. lu mu gën a teel gën a baax ci lu ci lu ci ci lu bari ba nga xamante ne tey jii nii handicap. wala enfant différent conseil yi wala boog xalaat bi nga xam ne rek da koy jox waajur yi wala ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci entourage bi a bàyyi xel ci xale yi surtout hmm. xam nga loolu day day tënk rek ne doom doom la damay faral di wax parents yu bari boo ko jëlee bàyyi ko ci kër bi dimbali woo ko pour mu mën a mu mën a développé donc ak feebar bu mu mënti nekk rek pathologie mu mënti nekk rek retard ak développement bu mu mënti nekk rek tey jii sa doom war nga ko mën a am bénéfice tey nga mën a gis spécialiste ñu saytu ko xool ko pour mën koo dimbali même bu dee handicap tey jii xaw naa diis ci suñu ni ñu koy gisee waaye li gën a am solo mooy nangu ko nangu ko tamit dafa am fu muy jaar procédure bi muy jaar pour que tey parent aussi ba ci accueil bi mu mën a nangu mën a saytu mën a xam li ci bari aussi des fois ñàkki information bi mooy waral tey jii nii lu ci bari dangay gis ni ñi ñëw en consultation dana leen tey am na ñu bari ñu ci kër yi. mënuñu ñëw wala soit jotuñu information bi pour mën a ñëw bénéficier wu ci rééducation yi wala ba nga ba nga teetal leen xamal leen lii moo ci baax lii moo ci bañ defal leen genre guidance parentale donc di bàyyi xel développement xale yi aussi aussi moytu moytu ndiku écran yi newuñu lépp bon ci écran yi waaye xale bi nga xamante ne ràññee ci lu bari li ci ëpp daal am na yeneen jumtukaay yi ñu mën a jël ba nga xamante ne tey jii dina favoriser développement am parce que âge nekk xale bi ni mu war a développer ak ni mu war a acquérir di ci bàyyi xel lu bari di sensibiliser aussi di ñaax nit ñi aussi ne leen tamit potentialité yi mu ngi fi yu ci bari mu ngi fi day waral ñu dem ci bërëbu hôpitaux yi tey jii nii pour mën a seet loo xamante ni njort nga ko ci sa ci sa doom wala ci sa sët wala fu mu mënti taxawee rek nga ne xaaral kat ma dem seeti dem seeti boobu du la wàññi dara boo demee seeti aussi tamit liñ ci gis dañ la ko wax lu nga xamante ne nekkul aussi dañ naan la carrément léegi wala bu waree ñu def orientation. beneen espécialité moo ko xool dee ne la ah lii kat moo ci ne demal seeti demal seeti diw ñu gën a bàyyi xel ba nga xamante ni xale dafa xaw a fragile développement aussi du ko mën a perturbé bari na donc ñu war a bàyyi xel gën a ñaaxaat nit ñi rek ñi nga xamante ni ñu bàyyi xel te aussi xam ne problème lu mu teel teel teel rek loo ko teel a mën a lijjanti rek mu gën a baax ci développement wu xale yi docteur Guèye ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, ci seen di émission bi nga xam ne rek mooy euh, meilleure santé ñu bàyyi la rek nga tàggatook mbokk mbokku yi. waaw maa ngi lay nuyu bi ak opportunité bi nga xamante ni nii permettre na ma tey ci benn domaine bu naan orthophonie mën cee tas yenn yenn information yu joxe ko ci seen rajo Afia FM. waaw di leen sant di leen jaajëfal aussi di leen wax ni yu am solo la yoo xamante ne tey jii nii ci domaine yu bari yoo xamante ne pathologie ndax pathologie boo ci jël rek yaatu na war nga mën ci mën a yaatal yaatal yaatal di ko def ba nga xamante ne tey jii nii population bi ak société sénégalaise bi yëpp ñëpp dinañ a am information yu ci jëfandikoo ba xamante ne ne njëriñ ak tawféex ak jàmm ak chifa rek la julal maa ngi leen sant di leen gërëm waa Afia FM. xanaa rek fàttali askan wi. ni Covid 19 mi ngi fi ba tey ba tax na dinay baax ñuy appliquer geste barrière yi di raxas sa loxo ba mu set di dandante waaye itam boole ko di takk mask ñu jëloon seen dose vaccin ñu wéyandi seen deuxième dose ña ko jëlagul itam mën nañu rekk dem ca structure yi fa ñu jëlee vaccin yi lépp ngir xeex Covid 19 di mbas mi. jaa ngeen jëf. ñu lay jaajëfal te di leen jox dig daje ci beneen numéro meilleure santé jaa ngeen jëf.